nee na ba waatoon ci ahdullahi ak ci miisaaqullahi li ngay li ngay gis moom lenn la waaye da ngaa waat ci ahdullahi waat ci miisaaqullahi boole ca nga xam ne ñaari baat ñoo bokk benn prix waaye bokkuñu ab yàq kon nee na bu loolu tebbi ko ñaari alamaan moo lay war ndax dañuy jàpp na nga waat ñaari waat ndax ahdoog miisaaku ñoo bokk maanaa waaye bokkuñu ab yàq waaye loolu neeñ sukkandikoo wuñ ko li sukkandikoo daal mooy boo jëfandikoo ñaari baat ñooñu ci ngiñ waaye li ngay giñ moom lenn dong la nga wax ci xaatullaay ak misaaqullaay bu tedd ko itam benn alamaan rek moo lay war waaye ñaar du la ci war ñeen fekkoon ne li ngay waat moom lenn dong la li ki waat naan tey jii waat naa ci yàlla tey jii duma dem marché loolu dong nga waat waaye danga koo waat nag baat ba nga waate nga baamu ko ay yoon ni ki nga ne wallahi wallahi wallahi muy ñetti yoon nga teg ci tey jii duma dem marché nga xam ne kon li nga waat leen rek la baat ya nga waatee moom nga wax rek baamu ko baamu ko ngir seddali kon bu loolu teggi ko nga dem marché itam benn alamaan rek moo lay war waaye duñ seet nga wax wallahi ñetti yoon ñu ne faaw nga def ñetti kafaar ndax ñetti wallahi nga wax déedéet waaye nag loolu bul koy jaawaleek su fekkoon ne lam waat moom du lenn nit ki daa waat ci yàlla ci benn jataay bi ne du dem marché waat ci benn jataay bi ci yàlla ne du wax ak diw mi waat ci yàlla ñettee duñ naan kafe xam ne kon yett yu bokkul la kon yett yooyu la lu ci rek giñul boppam la lu ca tebbi ko rek alamaan ba daal di koy war dañ ko wax ne ko bu yett yëpp tebbi ko benn alamaan moo lay war déedéet day mel ne yetti ngiñ ndax yett yëpp la bu ko defee nag kon lu ca tebbi ko rek ak alamaanu boppam ku waatoon tey ji nangam daal du ma ko def su ma ko defee rek soppi ko naa ab yéefar mbaa soppi ko naa yexoot mbaa soppi ko naa nasaraan bu la wëlbati ko nag def loolee mu waxal koy bu mu tax mu jàppe boppam ab yéefar mbaa yexoot mbaa nasaraan na jéggul la mu waxal rek te dara du ko ci war waaye na jéggul rek ñaan yàlla jéggal ko ndax loo ëppoon naa wax rek waaye ndax dara war ko ja xam nga moom daa wax nangam daal waat naan tey du ma ko def tekkeen su ma ko defee nag ab yéefar laa mbaa ab yéexoot laa mbaa ab nasaraan laa ba noppi def loolu nag boole ci su boobaa bu mu tax mu jàppee boppam ab yéefar mbaa yéexoot mbaa nasaraan déedéet na jégalu rek li wax te doon julli ba mu doonoon rek. nee na mboolem li yàlla daganal ci yow sóol bëti ko araamal ko ci sa bopp itam du tax mu araam ci yow ndax daganal ak araamal yàlla rek moo ko sañ yow sañoo ko kon nag. su araamalan ci yow lekk mbaa naan mbaa leen lu dagan ci yow it du tax loola araam ci yow lu may nag sa soxna moom boo ko araamalee sa bopp dañ koy jàpp ñetti fafe sa soxna moom dagan na ci yow waaye boo ne araamal naa saa soxna ci sa bopp nag de ci yoonu maal dañ koy jàpp ne fafe nga sa soxna ñetti fafe faaw jëkkër jaasu nag nga doo koo mën a takkat nee nañu nag bu fekkoon ne day jamono ya jébéer maanaam jaam bu jigéen amee mu waat ne araamal na ci boppam jaam bu jigéenam bii koy day mel na rek ku araamaloon lekk mbaa naan ci boppam du tax jaam bu jigéen ba araam ca moom lu may nag mu tudd araamal ga te jublu ci ab goreel bu fekk da caa jublu ab goreel moom kon jaam bu jigéen ba gore na balaa mën a jotee moom rek daa wëlbatiku takk ko soxna nga xam ne léegi nekkatul lu may soxna kon foofu am na teqale nee na ku wax ne sa alal daal def naa ko ci yoonu yàlla mbaa sama alal jëpp def naa ko sarax mbaa def naa ko addiyu dañ koy wax ne ko boo ko defee ñetti xaaj rek def benn bi ci yàlla mën a téye ñaar ñi waaw kooku bu ko defee ñetti xaaj rek bu joxee benn ba rek mu doy mu téye ñaar ña loolu nag wuti wa wuti war naa bu ràññeeloon ne nangam li def naa ko ci yoonu yàlla doon daa fekk mi mu am loolu dong dong nit mu yor kayitu junni ne junni bii def naa ko ci yoon yàlla ni ki saraxe naa ko boobu bu fekkoon mu yor junni ba kese kese amu leen tam du sañ a def junni ba ñetti xaaj di joxe benn xaaj bi junni bépp lay joxe waaye su fekkee ràññeelul na daa jékki-jékki rek ne sama alal yëpp def naa ko ci yoon yàlla ni ki sarax ba addiyu kon moom bu ko defee ñetti xaaj rek joxe benn ba mu doy ku waat ne nangam duma ko def mbaa nangam danaa ko def teg ci ne su ma ko defee danaa rendi sama doom ba danaa loj sama doom bu fekkee xelam daa dem ci ba ibrahima di bëgg a rendi ismaahil ngir jaamoo ko yàlla te yàlla jote ismaahil am xaaf bu fekkee xelam daa dem ca loola nga xam ne kon daa mel ne moom daa yéen ak jaamu yàlla na ko ibrahima yéene woon kon lam waat bu tebbi ko addiyu daal di koy war daa wax ne nag addiyu ma ab gàtt doy na ci waaye bu fekkee ne mën na gëleem mbaa aw nag daal di sib mu def ko gàtt moom mi waat ci rendi doomam mbaa loj doomam bu fekkee xelam nekkul ci jaamu yàlla ca rendi ga mbaa loj ga na ko ibrahima doon defee ca ismail xelam demul ca loola xanaa moom da di ab kàccoor rek yéenewul dara ca loj ga mbaa rendi ga mbaa lam ci yéene sax mooy rendi dëgg dëgg doom ja ak kooku moom day jégalu rek waaye dara du ko war ca loola su njëkk fa moom yéene gëm ci yéene woon ak jaamu yàlla xelam dem ci ba ko ibrahima yi bëgg a def rek loolaa tax ñu sant ko addiyuma nee bu nee nangam du ma ko def su ma ko defee rek danaa dox sa tànk ba dem màkka kon loolee mu waat bu tebbi ko rek mu war dox ak tànkam ba dem màkka su fekkee ne am na fu mu ràññeeloon ne fa lay tàmbalee doxe dem kon foofa lay tàmbalee su fekkee ràññeelu toon benn béréb bu muy tàmbalee ab doxam nag kon dëkk ba nga xam ne ca la waate woon rek ca lay tàmbalee dox ba te sax lim ne min maw bi xale fii ci béréb bu mu ñam ba jubluwu ci dëgg-dëgg béréb ba nga xam ne ca la taxawoon ba muy waat dëkk ba rek la bëgg a wax dëkk ba mu doon waate rek maanaam bu fekkee ràññeelu toon ne danaa dox dem màkka aji mbaa danaa dox dem màkka umra ji ràññeelu ci woon lenn dafa waatoon rek dox tànkam dem màkka kon bu demee baag lu ko ci neex lay def bu ko neexee aj bu ko neexee umra nee na bu fekkee daa tàmbali woon dox tànkam buuti màkka dem ba ci yoon wi nag mu tëlee mënta doxati li nga xam ne ko da ngay war rek jàll ngay wut loo war te jàll su wutee nag jàll nag te mën a delluwaat yoonu ñaareel nag kon day dellu yoonu ñaareel te diggante ba nga xam ne ko waroon ci yoonu njëkk ba mu dox ko ci yoonu ñaareel bi lam njëkk ndox nag a njëkk moom mën na koo war bu ko neexee mbaa mu dugg ko oto ba leneen waaye lam tëlee woon ba waran ko ci yoonu njëkk rek loolu lay doxaan nag ci yoonu ñaareel bi su fekkee xam ne ne bu delloo yoon ñaari tam du tax la waran ci yoonu jëkk bu mën koo dox kon dafa toog rek te def mu addiyo xataawu sëriñu gëstukat la moom daa wax ne bu xasee tële ci yoon wu njëkk ba ba war dem jeex na du aajowoo muy dellu yoonu ñaareel doonte xam ne ni sax bu dellu woon dana mën a dox la mu waran ci yoonu jëkk wi addiyu rek doy na du aajowoo muy dellu waaye nag jooju wax taxul ñu sukkandikoo ko lu ñu sukkandikoo mooy na dellu ndegam bu delloo lam njëkk na war ci yoonu njëkk wa dana ko mën a dox ci yoonu ñaareel wi nee na bu fekkee ne moom mi waatal ci dox dem màkka te la wax tebbi ko war a dem daa fekk muy koo xam ne mu saaj benn yoon kon nee na seeboo bu àggee mu daal di armal xumra mu daal di yéene xumra umra nag boo armalee mooy boo yéen nga daal di wër kaaba dox safa ak marwa bu fekkoon na taaj nag moom kon dañ koy wax ne ko watul watu mooy gën waaye ndegam moom daal na aj teg ci kon na jemp rek yem ci na jemp rek yem ci te bañ a watu su ko defee nag mu toog baaj daal na def tamatu ndax tamatu mooy nga yéene umra kese def ko ba àggal wëlbati ko aj teg ca loolu moo tudd tamatu kon na bu asee armal umra wala di ko teg ci aj kon def na tamattu xam nga daa wax ne bu armalee xumra ba wër kaab dox safa ak marwa day jemp te bañ a wattu mu ne la nag dañoo bëgg ndegam bu noppee ci umra gi da ci teg aj kon mu jemp rek yem ci ndax ba àggee ci aj ga ba war a wattu fekk bopp mu am lu mu watt loolu moo tax ñu gënal fii jemp ne bu doon loolu wattu mooy gën ñu ne boo li sa doon doxal sa tànk ba dem Madina mbaa doxal sa tànk ba dem Baytul Maqdis kon dañuy seet bu fekkee doxam kese nga nisër waaye yéene waale woo ci boo demee julli ca jàkk madina ja mbaa ca bit maqadis dem kese rek moom nga nisër kon du aajoo ngay dem say wa toog waaye nag bu fekkee yéene nga boo demee julli ci jàkk madina mbaa jàkk bit maqadis ja kon da nga war a dem waaye dem bi du aajoo ngay doxam tànk mën ngaa war daaba mën ngaa dugg oto mën ngaa dugg avion mën ngaa dugg ci leneen mu daal saxel ba dem rek boo demee la nga yéene woon a julli nag ci jàkk yooyee muy muy Madina muy Baytul Maqdis nga julli ko fa nee na boo gisoon na dem ba ci jàkk sàngam te du benn ci yett yi maanaam du jàkk ja ca kaaba la du jàkk yi madina du jàkk yi bayt maqdis mel na nga di suroon a dem ndax julli jàkkee ndar ja mbaa ndakaaru jàkkee ndakaaru ja loolu nee na loolu bu fekkoon ne moom nga di suroon du aajowoo ngay dem ndar du aajowoo ngay dem ndakaaru lim bi nga xam ne moom nga di suroon boo demee julli ko ci jàkk yi ndakaaru mbaa ndar rek da nga koy faj julli fii nga nekk waaye du aajoo ngay dem ndar mbaa ndakaaru du jar ngay dem dox du jar ngay dem dugg mbaa dara buntu bi ragal mooy buntu bi nga xam ne fii la jullit ñi ragale bi yëfa yi song ay foofu song leen faano nag mooy nga taxaw foofa sàmm buntu booba dara du fa jàll si di door jullit ñi loolu moo tudd faandu loolu nag nee na boo ko nisalee ci benn béréb ci béréb yu mel noonu war nga koo fexe ba def ko day daal di war ndax dangaa nisat lu baax te ku nisat lu baax mu war la kon faaw nga war koo àggale